democracy in human rights and in respect for law and eternal di banko Democracy human rights and respect for law buñ ko xati rew mi. Way slow du ne fam fam. Lolu dugal ñu sax bu baax ba. Kata fo gamé banko be fengo fen fana. Jëlul ne abukatu blakili. Nakul ci tubaaboo kaa ko maye evolution ko koolka ivorle si tooɓi wonde evolution meli dañoo ivol a nañaa ɗon kaane ngal kaa ko tawi monen jiitum mingene waxti e ngandulaa jamaale ma sañi tan sagono ten tenkon jonne profi bari si famlere atuyi addana dana yaalo ko tumandol min ko alinga ke ten amana koy ɓuure wahene bunde ɓe ɗi e momme jonte ka nder loko maƴƴi siroti ɗo jewati yiɓari dañoo famne ɗi on en si sampulodol ɗilo mumunna te johe sampul about six about mool moole mañanake o ñamira ɗon mbiɗen waɗe o kalam tan nidi mincide ko yewɓe mbiɗa ko amnañi sine kam kamɓe ɗum ñanta majorité sifa men sotola men mo tousas majorité majorité mbiñ wata amninga amne moye tousas majorité yaalo ko mum majorité baalete kam nen loon majorité bo makla bari naata euh, dasala ɗomannin doron wawi manqueɗen ko tuuti ah, a moole mune ko lundi ñiwa ko nga forcé ngataari public ñinoñu forcé fofole manke ba mol mol kana ka ka tinya ni ke la dam na mari na na na na na di grado je mari na ñoo endu ko ko na e ko diya ko ya rek na na taro ni le ba ko bi dam rek na na constitution to karala nah, loi to karala nga constitution si bo ni tan loi bi bo ni rek eh, na na na na extraordinary congress ke ni le ordinary luwaatu Carolina constitution bi Carolina Natal Republic. ñu ne lu tax tegu loi bi boor teg constitution bi boor ñu jël suñu république. Ah, bari nga demee mu tënk nga doon jé jé ne mu tënk. waaye li mu téye moom rek la téye. ah ni nga xaaral ñoom nga constitution land Carolina woon woon noonu la. bu fekkee ne tegoon nañ constitution bi boor. na independence ba xam ne daa ko lor. ah suñu independence demul fenn. ah quand même peut-être que démocratie and Inspector General of Police ti tuwaɓinokon fi mu naka Inspector General Police ɓe mbira adita jumoyɗen aɗa ñande gamben kosaylanooto wonnon ceeron pase ko ɗommi gambe hanni mantooru fo ɓuy waho juri mbaɗo fananketa boñonnete lowi kam noon lamel parti mol kanay kaye keela na teɗoɗo to parti mo nitiɗe ñoño franci in rono min mbeta mbila mbita nawon sone ɗen nen ɓuy ko loɗo Dari dal la fara ci jé mu amul gondali nga ni na na sondo wala faram no wa bu fekké am na gondal lolu a a de la dara jo sambal sandale de faaye bu dal je parti ci ko asli gambe fana dara jo sambal sambal sandale ci ko bari eh ndente tenga di ma ñaale mom non la ko gisé eh adam kot kotata la mu amul bi internal de la partie kono le maintenant a ak yéen ci parti bi. nga kata woo kata tijjee. lu mu ci mën a def. parti la karoo la. ci parti bi. banko la karoo la. ci wàllu réew mi. tool déewu banko dimbal la ci. ñun ñëpp doomu réew mi eh, nag. te nag ma kata ma sayte su na woon. ah dara lu ci ah, si wala solo Mr Chairman. loolu wax la Chairman. ka ka ka mu wax leen